waaw asalaamaaleykum internet du Saint Louis TV ñu ngi amane mbégte ak contentement di jakarlo ak yeen fi ci Saint Louis TV tay nak dañuy and ak ki nga xamantene moy Mbaye Ndiaye Tilala ak jeunesse su jàmm gën ci li nga xamantene moy kay ndogu kay ndogu nak ben concept la bi nga xamantene depuis mois de gi yop ñi ngi and ak ñi nga xamanteni moy mooy mineuru doole di len jox ay ndogu di len dimbalé ci li nga xamanteni ni c'est le seen doole toll tey nag dafa am surprise spécial bu ko ci mbay ñay def ndax dafa tay dafa jël ñi nga xamanteni mom la caabi féete ginnaw moy wa maison de correction et d'arrêt bi nga xamanteni mo nek fi ci Saint-Louis ci ñooñu lay yobbu ñi nga xamanteni moy ndogul tay tay nak moo tax saint TV wàcce li nga xamante ni mooy élément yi ci biir terrain bi ñu ànd ak ki nga xamante ni mooy Mbaye Ndiaye Tilala ak jeune Saint-Louis dem fa nga xamante ne mooy président ba ànd ak ñoom nañu dem te ñëw léegi léegi rek. li waral tey ñu teew fii mooy euh, xam nga doon nekk ci weeru Ramadan di weer bu nga xamante sam borom dafa bëri lu mu def.

loolu defe naa ne buñ koy def dara taxul ñu def ko lu dul ñaan ci sunu borom defal nu xewal ñaan ci sunu borom euh, mu yokk li nga xamante ni mooy sunuy fan te defal nu jàmm euh, loolu lañ ko duggee woon moo tax ak euh, ñi ma àndal kër gi waa kër Mbaye Ndiaye Tilala famille bi ñu nekk nii ak ñi nga xamanteni ñoy nek ci gannaaw les musiciens ak li nga xamanteni moy les techniciens tout le monde tay ñëw gunge ma and ak man ci koñ bi ñu dëkk ñu samp fi marmite du cœur diko def di doxé ay ndogu ba tay euh, ñu fas yéene tëj nag marmite du cœur yi lool mo waral ñu def togg yi def bernde yi wara def tiant pour ñaan suñu borom mu jékkal ma ma ci ma wo ci ñëpp euh, autorité yi japp am ñoo autorité yo xamanteni non seulement xaar nu sax ñu leen di woo mais ñoo ci jàppal seen bopp euh, monsieur Ba Crous jàppal na ci boppam et le DG Crous jàpp na ci non seulement sunu assurance ma ngoone ba jàppal na ma mais Xayral Baraya ak ma Massamba Gueye jàppale nan ma euh, doomu ndar yi nga xamante ni ñoom ñu may fekk ci bërëb bi nga xamante ni fa laa koy defee chaque jour di indi seen i xewal di ma ko jox man Mbaye Ndiaye Tilala ak famille bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm non seulement marmite di kër bi ñun dañ ko def rek mais defuñu ko dañ ko def mais jullitu yàlla yi doomu ndar yi ñoonu fekk si ñoonu jàppale ñoonu dooleel ba tax tey lii ñu def yi yëpp ñu def ko gisee li tax ma taamu ni tey dernier ndogu yi dama koy indi la détenu yi c'est pour ñoom ñu xam que ni ñun ak ñoom ñoo yem ay doomu aadama lañu yoo xamante ni xëy na sam borom moo leen teg nattu euh, te natt bu la ko sam borom tegee ci lu mu mën a nekk rek bu dul dee rek day jeex euh, loolu moo tax tey ñu ñëw fi encore pour soulager leen encore pour jox leen ay ndogu jox leen ay xéwal yoo xamante ni tey bëgg naa daal ku ci nekk nga sentir ni tey yaa ngi ci sa biir kër di ndog waaw ah, loolu moo waral ñu ñu def act bi ñëw indi ndogu yi jox ko les prisonniers yi nga xamante ni ñoom ma xarit lañu suma ay waay lañu ndax sama diggante ak ñoom dafa yàgg. yag ngeen gis ci télé bi may def ay concert ci biir mag bi yag ngeen gis may organiser lu ne diko indi fi kon tay su démé ni ah sant yalla sunu borom bu baakha a baax. ba mbok yi ñu ngi taxaw ki nga xamantene moy soxna ci nga xamantene moy mbay Mbaye Tilala léegi soxna si ñu ngi lay xaar wa ñu ngi la jiaté ma ngi nuyu yeen ñepp ma ngi nuyu ñepp waa tey nan nga gisee li nga xamante ne acte bi nga xamante ne moom Mbaye Ndiaye Tilla la ànd ak waa machinerie moom acte bi ñu def noo ko du mu dem ba koy def at yu bëree bëri parce que lii moom macha allah plus ñoo xamante ni caabi da doon féete ginnaaw nga defal leen ay ndogu berneel leen loolu moom macha allah kontaan nañ si trop trop yàlla na yàlla yokk mbokki internet du Saint Louis TV lii mooy li nga xamante ne moom la ñu indiloon dem nañ fa nga xamante ne mooy jàmm gën fa la ñu commencé lépp fa la lépp doore préparé gis nañ berde yi nga xamante ni soxna yi préparé nañ gis nañ café gi gis nañ meew yi gis nañ sachan ndox yi nga xamante ni lépp loo xamante ni war na rek loo xamante ni ci ndog la jëm mbay jaay tilaal ak ñi defar nañ ko mu bax ak nu mu gënee yóbbu ko fa nga xamante moy mag ba ñu mag it dégg nañ li nga xamante mom la Mbaye Ndiaye Tilala wax dégg nañ aussi li nga xamante moy régisseur bi limu wax muy ay cadeau ngeureum ay cadeau tiant yi nga xamante ne jëmale ko ci nga xamante moy mooy Mbaye Tilala moom mi initié euh, kay ndogu di wax ni tamit ñu ngi sant ñëpp di sant ñi nga xamante ñoy internet du Saint-Louis TV di gëreum ñëpp ma ngi gëreum sama caméraman bi nga xamante suba ba légui ñoo ànd ak mom di gëreum ñëpp di sant ñëpp di lañ jox dig dajja ci temps yi rek inshallah rabbi jërëgen jëf